ginnaaw ñetti fan yoo xam ni Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides am na ko ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Tiib tey jii ci alxames ji dëppoog ñaar fukki fan ak benn ci rabiul awal di gàmmu atu 1443 ginnaaw gàddaay gi dëppoog le 28 octobre 2021 Serigne bi bàyyeekoo na ci dëkk bi dem ci Mbul Kayel di dëkku boppam boo xam ni Serigne bi yàgg na fee nekk at mu jotit dina fi ñëw am fi ay fan. sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiiru xalifa général des Mourides bi mu agsee ci dëkk bi kilifa yu bëree bari teertu nañu ko ci njiital sëriñ Basiiru Mbàkke mbul ànd ko mbooleem taalibe yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi génn fësal seen mbégte ci ñëwug sëriñ bi ci dëkk bi nga xam ne moom moo di mbul kayal mbégte googu sax moo waral ñu ànd ak oto sëriñ bi ba mu dugg ci fi nga xam ne moom moo di ci kër gi ci gàttandu googu bokk na ci ay xasida yoo xam ne yëkkati nañ ko fi ak waa daara Hizbut Tarqiyyah ci dalal sëriñ bi ci dëkk bi waaye fas yéene ànd ak moom ci diirub ngan gi njàngum xasida goo xam ne bés bu yàlla sàkk daañu ko fi yëkkati sëriñ bi di sàkku ci taalibe yi ak kilifa yi nga xam ne dañoo bëgg a ñëw amal seeni ziar ñu may ko ba samedi bi nga xam ne moom lañ dënmal dëppook le 30 octobre 2021 ci la sëriñ bi fas ubbi ngir dalal ñi nga xam ne ñoo ñëw di ziare si waaye ñaari fan yi di alxamis 28 octobre ak aljuma 29 octobre sëriñ bi du ko ubbi di ñaanit it mboolem daayira yi nga xam ne daañu ñëw ci samedi bi ngir fas yéene ziyaare si buñ ñëwee ñu sàmmonteeg dëkk bi ak teggin yi yokk worma ci barab bi te it déggal kilifa yi nga xam ne ñoo fa nekk yor lépp lu jëm ci wàllum ziyaar yooyu le ñaanalaat cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou xalif général des Mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wér. وكل معاي بركة كما تري السماي وجل كتابتي ككل مرسلي يا من وابتلي أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كبر قبل وكنت لي بمخجل النور يا الله يا بمجد مجد خصمها وجل بجاه المنتخبات رعاية القرآن سل آيات وجل بجاه المنتقى آيات رعاية القرآن سل آيات وجل كتابتي من سل يومي فوق صلاة قبلت وسومي واقتسم بقتل ما من القلوب أنت الخبير والكبير والغريب وابتلنا بك وبالمسفي عن كل سال وكل مدفين وجبتنا بيمين سمسدي وبرني سي وقلبي أرسلي